Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy euh, doore ak euh, génnub àdduna euh, kii di imaam Alioune Badara Ndao moom nag gannaaw sax ñu daal di koy denc rek foofa ca diwaanu Kaolack ni ki tey nag kii di maam Makhtar Gueye daal di lay defaat rek ay révélation jëm nag ci génnub àdduna kii di imaam Alioune Ndao ci loolu nag am nekk ay révélation yu yoo xamante ni njiital ONG Jamra daal dina koy def rek ci biile génnub àdduna kii nag. Euh, gannaaw sax ba nga xamante ni am na yu bëri yoo xamante ni euh, daal dina koy leeral ci nag euh, nekkinam foofa ca bañ koo denc rek ci prison ba ak sax yu métti ya nga xamante ni doon nañ ko fa doon na ko fa dund loolu nag bokk na sax ci gannaaw bañ ko interné rek foofa ca l'hôpital bu Fann ak sax gannaaw ba nga xamante ni dafa daal di rek tombé dans le coma lu toll ci juróomi fan loolu nag dal di jaaxal ñëpp ci koo xamante ni il était bien portant moom nag maam Matar daal di def yi des révélations ci rek bi lay génn àdduna mel ni sax ku am rek ñenn ñoo xamante ni sax daf leen di tuumaal rek ci bi lay génn àdduna kii di imam Alioune Badara Ndao mu mel ni sax ay révélation yu jëm rek ci wàllum torture yoo xamante ni dundoon na ko foofa ca prison ba ndax kat kii di imam Alioune Badara Ndao laata mu génn àdduna sax amoon na ci yenn ci ay plateau de télévision yu mu toggoon di wax rek nekkinam foofa ca prison ba na mu métti woon ak sax nañ ko jéngee woon rek yóbbu ko euh, mën mënee ko lool nag nekkoon loo xamante ni sax daanaka euh, daal dinay fësal ay kàddu rek ne dañ ko daal di tooñ ba pare euh, mën mënee ko yóbbu ko ca prison ba nekk rek ay métit yu bëri yoo xamante ni jot na koo dund foofu moom nag daal di expliquer sax loolu laata muy génn àdduna waaye nag sorti njiital Jamra di Mame Makhtar Gueye mel ni kuy dëggal yile kàddu nga xamante ni ki fi bàyyeekoo daal dina koy waxoon rek jëm ci li nga xamante ni sax jot na koo dund foofa ca prison ba wax ci eh, kii di eh, waay jur bu jigéen bu Soumboulou Bathily eh, moom nag nit ki lënd bi ñu génn dañoo daal di annoncé woon sax ne dafa daal di génn àdduna waaye nag mu mel ni information boobu dara amu ci kenn xamul fan la jóge wax rek naan dafa daal di génn àdduna te moom nag elle bien portante gannaaw sax ba nga xamante ni moom mi nga xamante ne moom mooy concerné bi daal di nay génn rek def ab vidéo daal di wax rek ci bile information nga xamante ni sax kenn xamul. fan lañ ko jëlee rek ah, di wax sax naan moom dafa génn àdduna ah, tey dara dalu ko ah, kii di rafet ji ko nag ñu gën ko xam ci TikTok bi ak sax yenn yoo xamante ni rek mu ngi koy def rek jëm ci wàllum sensibilisation à travers yi nga xamante ni mu ngi koy def moom nag gisoon nañu maire bi nga xamante ni daanaka ñu bëri rek dañ ko daal di waxoon rek yëkkati ay kàddu tam ko de nitu guddi loolu nag nekk ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ni ñenn ñi sax boo xaman rafetlu wuñu yi kaddu euh, moom rafet jikko nag mu bokk sax ci ñi nga xamante ni daal dinay métitlu euh, lool euh, ñuy wax sax naan moom maire boobu noonu elle est issue d'une famille religieuse très connue foofa ci village am moom rafet jikko nag mu mel sax kuy dëggal yi ni mel di wax rek yenn ci ay tuuma yoo xamante ne ñu ngi koy teg ci doomu aadama yi te dara wóoru leen ci loolu nag bokk na rek ci maire bi nga xamante ni sax dañ ko daal di gisoon rek ci ab suufu fenêtre mu daal di yéeg immeuble bu kawe lool kenn xamul nag lan moo ko fa yëgal ak lan moo ko fa teg waaye nag kàddu yi ñaaw rek jëm ci maire boobu noonu ñu tam ko fi sax loolu nag bokk ci loo xamante ni kenn rafetlu ko gannaaw ba nga xamante ni teg nañu tuuma ci dërëm te amuñu dara mu nekk rek wàllum preuve jëm ci li ñuy wax. kii di maam Mame Gor Diassak gannaaw ñu invité ko rek foofa ca télévision ITV moom nag gannaaw yenn ci ay révélation yoo xamante ni nag daal dina koy wax jëm rek ci ay point yu bëri yoo xamante ni daal dina ko fay soulever rek jëm ci wàllum politique ak sax engagement bi nga xamante ni daal dina ko fay am waaye nag showbiz bi ak ni nga xamante ni sax noonu la yëngoo rek moom Mame Gor Diazaka joxe ab analyse am waaye nag faramaren bala daal di teg ca kaw moom nag mu jàpp ne sax ki nga xamante ne moom moo di Wally Ballago Seck moom moo di nekk rek ca kaw loolu nag bu jëmee rek ci wàllum showbiz waaye nag ñu des ci Wally Ballago Seck moom ba tey ak sax concert bi nga xamante ni amal na ko foofa ca diwaan diwaanu Mauritanie ah, mu mel ni nag Mauritaniens yi daal dinañuy raafale rek lépp loo xamante ni rek ay billet la ah, jëm ci entrée bi les concert ñoom nag mu mel ni ah, dañoo daal di namoon Faramaren bu bu baax a baax wone li nga xamante ne moom moo di seen bëgg-bëgg rek ba noppi rek jënd lép lépp luy ticket ngir fas yéene teew rek ci bile spectacle kii di Philippe a nekk doom ci Viviane Chidid ak Boubacar Ndour yëkkati na ay kàddu rek jëmal ko ci waajuram bu jigéen bii di Viviane Chidid loolu nag wanewaat bu baax a baax témoignage yi nga xamante ne doon na lu rafet loolu mu teg rek ci kii di Viviane Chidid moom Philippe nag muy wax sax naan kii di yaayam elle est polyvalente ci musique bépp xeetu musique rek boo xamante ni tegal nañ ko ko moom Viviane def ci daal di adapté wu te loolu nag dafa doon loo xamante ni dafa daal di jafe lool ci artiste te moom nag ci yaayam rek la ko daal di gis mu am benn polyvalence boobu nga xamante ni sax nemmeeku nañ ko bu baax a baax ci wàllum musique waaye nag ci Viviane ak njabootam googu sax gannaaw équipe bu Mahfous ak Zé di def rek lii di Prank Star dal nañuy rek piège kii di Viviane Chidid waaye nag ca fin ba kii di doom ji di Zeyna nag mu ngay défendre rek di jël défense wu yaay ji di wax nag naan kuy laal yaay ji rek laal ko moom nag pare na rek ngir défendre ko loolu nag jëm ci lépp loo xamante ni rek wàllum comédie la mu nekk kaf foore jëm rek ci équipe bu Mahfous ak ki nga xamante ne moom moo di Euh, mu nekk initiative boo xamante ni sax prank star la euh, di prank rek ay star euh, jëm rek ci di leen nax loolu nag nekk loo xamante ni artiste bi daal dina koy rafetlu bu baax a baax jeexalee ci Viviane ba tey rek ak sax clipam bi nga xamante ni muy yëg-yëg loolu nag gannaaw ba nga xamante ni daal dina koy dugal rek ci YouTube bi yëg-yëg nag en moins de quatre jours clip bi daal dinay am lu toll ci un million de vues loolu nag battre record boo xamante ni sax daanaka Ah, bëriwul luñ koy gis ci diiru ñeenti fan rek ah, moom ma gannaaw clip bi daal di dugg rek ci YouTube ah, daal dinay gagné lu toll ci un million de vues loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fans yi ak ñi safo la Reine du Jolof Band waat bu baax a baax a seen bëgg-bëgg ci ki nga xamante ne moom moo di Viviane ak tube bu bees bi nga xamante ni daal dina koy proposé Sénégalais yi astar toute belle toute ravissante comme toujours moom la ñuy gis noonu ci image yi mu nekk tamit artiste boo xamante ni ràññe nañ ko bu baax a baax fii ci Sénégal ndax mën li def waaye tamit ànd ci ak discipline la lool moom Arstar ah, moom la ñuy gis noonu rek ak nouvelle photo yi nga xamante ni daal na koy publier ci ay comptam ci di Lisa moom mooy ex femme bu porte pa Omar Diop moom la ñuy gis noonu muy défoulé wu rek ah, ci TikTok bi ak sax fec yi nga xamante ni mu ngi koy def yenn ci ay commentaire sax yoo xamante ni ah, jot na ko jot jëm rek ci di ko méngaleeg sax ak ki nga xamante ne moom moo di Kili mu nekk tiktokeuse boobu nga xamante ni dafay rek di séduire ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay floueuram waaye nag moom euh, Lisa euh, nekk ex femme bu Pod et Marichou euh, ñu ngay wax sax naan daal dinay détrôné rek Kelly ndax kat TikTok yu bees yi nga xamante ni daanaka jël na ko rek jëm ci wàllum pecc mi. arrestation délégué Amar Idali ak Armand Ndiaye la ñuy waxtaanee loolu nag jëm rek ci liw Faramareen mi nga xamante ni nappe woon nañ ko moom nag gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom présenté woon nañu seen i ay excuse ci kanamu Abdoulaye Diop Xaas ak ki nga xamante ne moom moo di Makhtar Diop Soubatel teewul yoon daal di def liggéeyam tek leen loxo waaye nag ci arrestation boobu ñu jàpp ne sax ki nga xamante ne moom moo di Idali ak kii di délégué Amar. ñoom rek la en garde à vue Arma ko daal di mujj bàyyi loolu nag jëm rek ci liw Faxamaareen mi nga xamante ni daal di nañ koy kidnappé woon. wal Naboudache Rangou ak Tické Lawbe jamono ji moo lëmbee réseaux sociaux yi ku ci nekk mu ngay weer sa morom rek yëkkati kàddu gu ñaaw di ko teg ci sa deru moroom loolu nag gannaaw ba nga xamante ne kii di Naboudache mu ngay amal ay live am ba léegi rek di cay wax yu ñaaw loolu nag bokk na ci fësal rek yenn ci ay audio xamante ni sax mu ngi tukkee. ci jabaru ki nga xamante ne moom moo di monsieur Mbergane nekk borom këram waaye nag beneen audio boo xamante ni sax daal dina koy génn rek jëm ci audio bu tukkee ci kii di Tické Lawbe mu mel ni sax ab yoo xamante ni ay menaces moom Nabou daal di koy partage rek ci ay live fam waaye nag kii di Rangou bàyyiwul benn yoon ki nga xamante ne moom moo di Nabou Dash gannaaw kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni yëkkati na ko teg ko ci deram Nabou Dash nag gannaaw ba nga xamante ni dégg na li ni moom tamit mu riposte ku ci nekk rek. di yàq sa morom lu mel ni xeme mu mel ni nag jamono ji geex ba entre Nabou Dash Tické Laobé ak kii di Rangou saf na sàpp ci internet bi ni ki démb nag trophée coupe du monde bi mu ngi woon Sénégal waaye nag gannaaw ñu dalool ko rek ci bëccëg gi guddi gi nag dal dinañuy amal ab soirée clôture loolu nag daal di jëm rek ci bégal ñi nga xamante ne teewoon nañu ci bile cérémonie waaye nag ña toj ci soirée ba muy abano stress jaw ki cëpp ak ki nga xamante ne moom moo di Boubacar Diallo ak sax seen fecc lool loolu nag jëm rek a ci dal di animé bile soirée nga xamante ni sax ñu ngi ko def rek a ngir dal di bég lool ci teewaayu coupe du monde bi nga xamante ni sax daanaka Sénégal bokk na ca ña koy jongante foofa ca di Selbé Ndom daal dinay kontaan loolu bay jooy ci geste bi nga xamante ni Wally Ballago Seck daal dina koy def loolu nag jëm rek a ci daal di koy offrir ay denrées alimentaires moom kii di Wally Ballago Seck nag bokk ci ñoo xamante ni sax ràññe nañ leen bu baax a baax ci lépp rek lu jëm ci wàllum social bi yoon nag ci voyante bi di Selbé Ndom laa daal di defar rek yile teranga moom nag moo daal di kontaan lool ci geste boobu nga xamante ne Wally Ballago Seck miin na ko te tàmm na tamit di ko def jëmal ko ko rek ci jaamu yàlla yi waaye ñu wax ci leneen ca diwaanu Thiès ab conducteur moto Jakarta di wuyoo ci turu Se Diaw am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom la ab xaritam daal di jam rek ba mu daal di génn àdduna xarit ba nag mu ngi wuyoo ci Ndiaye am lu toll ci fanweeri at ak ñett ñoom nag gannaaw altercation bu dox seen diggante loolu nag ñu jàpp sax kii di victime ba daf ko daal di loon rek xaalis tax sax ba moom. CI Ndiaye daal di koy jam rek ba sax mu daal di mujje ñàkk bakkanam ci loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sapeur daal di nañu jël rek bile koor yóbbu ko ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waaye nag ki nga xamante ne moo def li ni mel di wuyoo ci CI Ndiaye yóbbu nañ ko dal di koy placé en garde à vue. tàggat yaram la ñuy jeexalee wax ci coach Aliou Cissé fii ki fan yu néew rek dina fësal liste ñi nga xamante ne ñoo war a jongante rek match xarito yi nga. xamante ni ah, dina bokk rek ci wàccaayu coupe du monde bi ah, boo moyul nag ah, ñenn sax ñoo xamante ni amoon nañ ay jafe-jafe lool seen club bokk na ci Famara Diédhiou mi nga xamante ni dafa gaañu woon rek reprendre fan yi rek ak ki nga xamante ne moom moo di Ablaye Seck mi nga xamante ne amul woon sax temps de jeu ci club ba mu ne woon ba noppi sax daal di signé rek récemment ci beneen club bo moyul nag ñooñu Aliou Cissé bu changement di am di dugal ñeneen boo moyul ñooñu dinañu génn mu andi ñeneen ndax kat motif yi nga xamante ni sax jot naa ko wax ñàkkum temps de jeu bu Abdoulaye Seck ba tax sax mu daal di dem ci beneen club ak Famara Diédhiou ah, mi daal di jógee rek ci blessure ah, fa nga xamante ni sax ah, moom mooy clubam waaye nag dooraat na ay tàggatoom waaye boo mooy nag kii di Aliou Cissé coppite bu dee am ñaar ñooñu naruñoo bokk ci bile liste. club bii di Chelsea daal nay ñàkk ni ki démb ci kanamu Zagreb loolu nag gannaaw ba nga xamante ni seen coach ba di Thomas Tuchel daal dinay expliquer rek li tax di Edouard Mendy góoluwul match yu démb bi loolu nag bokk na ah, ci rek ah, wanewaat bu baax a baax ne am nañu ñaari gardien yu mag ah, te sax baax na kii di Kepa mu daal di am moom tamit temps de jeu comme que Edouard Mendy championnat bi yëpp moom mooy góol kon nag baax na mu daal di changer classement am andi beneen góol wane ne sax ne ay joueurs yu mag rek la daal di am ci clubam waaye tamit blessure bu ndaw rek boo xamante ne kii di Edouard Mendy daal dina koy am waaye nag Thomas a tey nag ba mu daal di xëye na mu xëye neexul dara ndax kat ak club bii di Chelsea dañ ko daal di dàq. mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen an loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu bi te laal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë